dafa bëri carte d'identité non yi dafa bëri ci jeunes yi te dañ ko war a lijjante balaa dimanche pour ñu mën la votel dëgg la dëgg non vote yi bëri na kon dañ ko war a lijjante merci beaucoup merci beaucoup Maya Kama mu ànd ak ñun depuis le début léegi nag dañu dugal beneen allier moom également mu liggéey liggéey bu rafet ci suñu taxawaay bi nga xamante ne def nañu ko ñoom ñëpp sans exception dinañ ci ñëwaat dañuy dugal Boubacar kamara mu def son discours pour trois minutes mbokki Géejawaay na ngeen def non dégguma leen de non damay bàyyi damay bàyyi non non non damay bàyyi ma ne aujourd'hui je vais parler français monsieur Ousmane Sonko vous êtes le pont entre ce peuple-là qui vous a suivi qui vous a aimé qui vous a soutenu Vous êtes le pont entre ce peuple et l'État. Vous avez une grande responsabilité. On s'achemine à grands pas vers le 17 novembre. Nous allons fermer les yeux, mettre nos bulletins dans l'urne et nous la majorité à l'Assemblée nationale. la donnerons en fermant les mais nous ouvrirons les yeux pour vous demander de traduire cette vision-là en réalité. Et pour la traduire en réalité, nous avons besoin de l'appropriation de ce peuple-là. Et nous comptons sur vous pour le faire. Vous êtes le seul capable de réaliser cette appropriation parce que tous les bons plans sont, ont fini dans les tiroirs parce qu'il n'y avait pas cette appropriation. Je sais que vous le savez. Ce pont-là aura des piliers. Nous ferons partie de ces piliers-là. nous nous battrons jour et nuit. Nous donnerons tout ce que nous avons pour que vous réussissiez, parce que votre réussite n'est pas une réussite personnelle, c'est une réussite pour le Sénégal. Monsieur Ousmane Sonko, je l'ai dit et redit, nous n'avons plus besoin de votre raison. Nous n'avons plus besoin de votre cœur. Nous n'avons plus besoin d'avoir la preuve que vous avez donné tout, corps et âme, pour ce Sénégal. Nous avons besoin que vous soyez cet homme traduire cet espoir du peuple pour le Sénégal de demain. Ousmane, nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur toi pour vos beaux yeux. Nous ne comptons pas sur toi pour vos pastilles succulentes. Nous ne comptons pas sur toi pour votre courage, mais nous comptons sur toi parce que nous vous avons pratiqué et nous savons que vous pouvez réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Boubacar Camara discours bi am na solo lool lool lool léegi dañuy dugal Mbène Faye moom également pour trois minutes suñu tata bu jigéen ñi di dugg day kontaan gis naa muy yëngal bopp bi rek kon Mbène ñu jox la kàddu gi. waa Ndakaaru Njaay asalaamaaleykum waa Ndakaaru Jal Jóob waa Géejawaay nuyu naa leen di rafetlu cette très forte mobilisation def ngeen ko démb bi caravane bi duggee ndakaar xolu sénégalais yëpp sedd def ngeen ko demb wane ni borom réew mi moo dugg ci ndakaar la président Ousmane Sonko xamoon nga ni sa dugg ndakaar du yomb xamoon nga ni boo duggee Dakar waa Dakar ni yëg ni dakaar am na gan réew mi moo dugg si ndakaar la président Ousmane Sonko xamoon nga ni sa dugg Dakar du yomb xamoon nga ni boo duggee Dakar waa Dakar ni yëg ni dakaar am na gan borom réew mi yegsi na borom Dakar yegsi na yow yaay ki nga xamante ni koo joxoñ wala loo wax yàlla barkel ko kon boog monsieur le président dañ lay ñaanal yàlla parce que li nga yéene ci Sénégal ñaan rek lañ la mën a gungee ak gunge la ci projet bi taxawu la foo joxoñ ñu taxaw loo baatale ñu kub loo wax ñu ànd ci ak yow parce que xam nañ ne deux mille cinquante sax doyuñu ak yow monsieur président mbaa yéen xam ngeen ni guy gi samp na ma ne nag xam ngeen ni guy gi samp na te guy gi nag day étendre ses tentacules xaju balcon mënu ko simpi ces politiciens mourants là mënuñu ko simpi deux mille cinquante doyuñu ak moom deux mille cinquante ñun ak moom ba géej gi fer ñun ak moom ba keroog Sénégal di wéy di jël yoonu développement te xam nañ ñu yaa ci yoon bi ndaxte six mois nga ànd ak sa rak sa xarit son excellence le président Bassirou Diomaye Faye liggéeyal ñu lu nga xamante ni nit toog na fi douze ans defu ko kon boog bu ñu gisee meeting bi ak li coow li doon bare yëpp dañuy xam ni yaakaar bi ci yow tey jii la gën a am tey askan bi gën la yaakaar tey lañ la gën a wóolu tey la ñu gën a xam ne yoon wi nga ñu jëmee mooy yoon wu baax wi ndaxte nag dañoo ànd battre campagne fu ñu dem buñ ko dégloo mu wax askan bi dañuy kontaan te jafe-jafe ya askan bi di dund moom lay tudd ci discours am indi ci ay solution via horizon deux mille cinquante kon boog horizon deux mille cinquante ñu xam ne moo mën a defar réew mi parce nag dafa nekk liggéey bu nga xamante ni buñ ko xoolee xam dafa càmbar bu baax jafe-jafe askan bi fas yéenee indi ay réponses yu nga xamante ni moo ko nar a saafara waaye nag monsieur le président du ma ñëw ba fii am yóbbante sama waa commune dañoo nekk Dakar nag te dañuy faral di wax ni Dakar moo jur yoof moo jur Dakar dama juum waaye yoof dañoo ni président réew mi bari na ay problème torop torop te xam pour saafara waaye nag yoof dañu cee raw dañoo bari problème ndaxte dañoo yaatu ba gan gu tal ko ba far mujjee xat monsieur le président problème foncier am nañ ko à yoof te waa yoof yaakaar nañ la ci xam nañ ni taxawaay bi nga taxaw di ko mën a régler waaye monsieur le président ndawi yoof it ñu ngi lay xaar ndaxte ay ndaw yu engagé wu lañu ci projet bi te lépp lu nga xamante ni rek tënk nañ ko ci projet bi deux mille cinquante xam nañ ne daw ñi am nañ ci par bu respons bu bu rëy waaye ndaw yi ñu ngi la ci waaye di wax ni Yoff aussi dëkku pêche la napp gi am na fa solo lool suñu mbokki mool yi ñu ngi doon souffrir des années te yaakaar nañ ni boo yegsee solution dina am kon boog dama ni monsieur le président man mbooloo mii ma gis jarul sax ñuy dem mënoon naa ni jarul ñuy dem élection parce que gagné nañu ba pare la victoire est assurée dans la région de Dakar xam nañ ni l'ensemble des députés dañ koy jël mais li ma bëgg mooy na ñu fexe ba les cent cinquante députés ñu dépassé ko largement ba nga xam ne ñuy coow bu ñu yaru woon sax amaana ñu am lu ñu def ak ñoom am lu ñu seet waaye comme yàlla dafa dogal ni leneen yeneen tànk lañu ñu nañ leen won ni leen sénégalais yi suur nañ leen sénégalais yi pare nañu ci ñoom te dañ ñu war a abal définitivement ñii bu ñu jógee ci élection yi a waratu ci am kenn ku nga xamante ne war na dese ak parti politique dañoo war a tas seeni parti ñu ànd ak ñi ñu mën a liggéeyal liggéey pour soppi Sénégal incha allahu taala